nag loo xam. waaw salaamaaleykum waa Angleterre di nuyu waa ñuy déglu ñëpp ak ñuy seetaan ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant dinañ xamal ne boo ko seetee ñu ñëw fii tey suñu teewaay toog nii ma teewal suma xarit suma grand frère suma xarit Ablaye Thiam di naanaan moom macha allah ku nekk xam ko macha allah mu def lu rafet si réew mi ak Gambia mu doon koo xam ne macha allah moom yaakaar naa ne ñu koy déglu ñëpp kontaan si moom ndax mu def dafa neex. man nag Medou Ndiaye yaakaar naa ne dafa doon loo xamante ne Angleterre ak Sénégal ak ko wër yaakaar naa ne kenn moo may laajte ndax euh, Medou ku ko xam rek dafa am tax xam ko ndax macha allah day yëngu suñu mbirum ngéwél te di tëggal xale yi di tëggal nag su ma géeru Angleterre xale Angleterre ñi nga xam ne macha allah dañ maa bëggal seen bopp. dina xamal na nag dafa am lu tax lii lu tax mooy ndax dafa am chaque année loo xamante ne day am fii si Angleterre fii si UK muy tànn de rëy muy huit bi ñu koy wax huit bi. ndax huit bi li ko lal mooy Yaram Aar Ndiob Malick et moom mooy def chaque année et boole ak Sénégambia ñu def huit bi ndax lii boo gisee li ko waral mooy ñëpp bokk ndey ak baay ndax ñi war ñi xamante wul woon mën a xamante si guddi gi ñi nga xam ne gëj nañoo gis ñuy mën a gisante ndax looloo tax Yaram Aar di organiser yu mel nii ndax li dafa bokk si cosaan bokk si aada bokk si loo xamante ne dafa war ndax ñun Sénégambia ñu jàmm la ñu xam foo ak ree déggoo bokk ndey ak baay loolu la ñu xam. ndax boo gisee li yaar aar di ko def mooy dafa bëgg ñëpp bokk ndey ak bàyyi muy wig bi wig bi nag ñu koy def nag afta weeru koor mu jeexee ñu koy def nag première première fausse wig bi ngay njëkk jot ñu koy def muy doon tànn leen première ajuma ji première ajuma ji nag dafa doon loo xamante ne Medine Ndiaye mooy ñëw ak gurbam def tànn defar ba mu baax ak ba mu kawe comme dama ko daan defee rek chaque année dama ko daan defee defar ba mu très ndax bu dee dafa yu bees yu xam te dama ko indi ndax Sénégal bi yaa bu ñu wootee rek damay jël lépp defar ba mu baax ndax man maa ngi si biir jërëjëf Abdoulaye Thiam guddi gaa boobu yaay borom ndax yow macha allah da door doon koo xamante ne ndaanaan nga doon ku baax yaru du way lu neex sax xale yi sax mag ñi sax kilifa diine yi sax kilifa aada yi di wax lu neex di tagg Seydina Muhammad def lu rafet léegi nag Ablaye guddi gi ñoo ko seex ñaar ndax sama waay ak sama doomu ndey nga xamante ne nii damaa bëgg nga ñëw nag jàkkaarloo caméra bi wax wax si guddi gi. ah jërëjëf Madou Ndiaye suma doomi ndey suma xarit. dëgg la ñàkk ki ñaan rafet xol comme ni ma ko waxee ci mbir mi rek loolu mooy teg subaa na ma la nit ca bopp dara. ah comme ni nga ko waxee madum buur géwél bu mag bi lee ni nga tibbee gitaay bi rek loolu la njommaa li nga wootee ci rek nag yaarabaat saa yu wootee rek lu bari yëngu dëkk bi yëngu ñëpp xam ne nag wax dëgg yàlla nga daan oote ooteeti na baat ba jibati na maa la ko wax waaye nag wax naa ko sirif ànda dooram boobu nga xam ne nit ku baax jàmbaar doomi Momar Jàmme ji wax naa ko ne ki nga àndal du cuune li mu mun cuune man ko dëgg Babacar Diagne bàyyam Ousmane Diagne bàyyam ñooñu ñëpp ay borom ndombal tànk lañ ci réewu Gambie te ko juddoo ñun ñëpp ko juddoo xamante yàgg nañoo mbooloo kon yoon su ootee lu mel nii ñun dañ cee sawar dañ cee gaaw ndax xam nañ ko te xam nañ dañ mu oote lu rëy fii ci Angleterre dajale xeet nit ku ñuul yëpp Sénégal yëpp cultural bi la wax naam waaye ku leen ci gis boppam la. dëgg la Malien baa ci biir. Mauritanie baa ci biir. waaw ba ñu jógee Zimbabwe feneen fu nit xamul Guinée Conakry ñëpp. waaw ñu ci biir di seen bopp ndax cosaani Afrique kat nag Afrique rek la cosaan yëpp a benn la. dama nag mu ne ni ma mooy damay bàyyi ba avance weeri koor gi jeex on the twenty fourth tombé àjjuma mu ne keroog bés boobu rek ca ngoon sax ma doon jaay wala moom lañ ko bàyyee ak groupe am mu def tànn leen doy waar kenn mos ah ñu foog na ca yem. nga jëlee ci bul sedda àjjuma sàmm 25 ñaar fukki fan ak juróom ci weeri agos mu ne góor ñi laa boole xale ak mag nañ dem ca paat ba tàngal seen yaram ndax ku ne nag xam na ne football bokk na du suñ cosaan waaye jël nañ ko mu dugg suñu xol yi benn nuru na nit ñoo ko moom suñ cosaan la kon nag wax dëgg yàlla ñoom maa leen gisal dara góor jigéen na ngeen dem samedi ca paat ba te xam ne dinañ gis xale yu góor yu mën a football fu téew def tàngal yaram ca ngoon sax ñu jëlee Assane Ndiaye bi la jamono nag. waaw waa ji xew ci jamono toj Sénégal ak Gambie Afrique ak Europe moom la njoog bi indi Angleterre pour bëggal nit ñi ñëw ñu ne Angleterre. dëgg la la dimanche ga Ablaye man Ndiaye jàkkaarloo waat rek ak Simba soo xam ne dig naa waa Angleterre ni li ma nar a jëf dimanche ak kasa gi ma nar a def ci tànn weer bi non bu ko kenn man. cosaan dëgg dëgg. laa leen mën a fàttali te kenn waral ko dul jox Malick Babacar Diagne Simba soo xam ne buñ ca jógee after party ba rek moo cay tegu ca guddi ga waaw loolu di jàpp muy raxasu bi raxasu bi nag moom du ma ko nettali du ma ko wax ci télé du ma ko wax ci rajo. raxasu booba ba raxasu bi raxasu ba. buñ ay loxo yi ñu raxas. kon ñu ngi woo Angleterre yëpp. waaw 24 la 25 26 27. maa la wax loolu 24. waaw ku ñëw gis ma ñu jaay football ak basket ca guddi ga Assane Ndiaye ñoom jabar dimanche ma ne la simba soo xam ne maa ko wéy man Ablaye Bori Fat Fat ak Yaama Seyni Baye Yacine Kébé Thiamé Yamari Thiamé Diagam bu ca Sweden boo ko wéy ak Madou Ndiaye mu ñàkk ki ñu toj paak bis ñu ñaan filmé kon ñëpp dinañ ko seetaan xam ne def nañ fi lu kenn loolu li nga wax dama koy dëggal ndax man loolu dañuy raxas nag dafa war a ànd ñam nag ndax ñun lu ñu organisé ak lu ñu def yaram aar raxas suba neex du politique kese de sa am na say boole nag lu neex bu saf sàpp nag. yàlla yaayoo yaay. ma dem metti na. sa sa sa gët gis sa gët gis waay kaay ñu bëggante waaw tey ma jeexalaat yaay. muy jàmmi borom ba alal ba ci ngoon. sëriñ booy tàgguma. ndeysaan. ngoon ma fàttal tàpp ma ay waaw waaw du ko tooraay daal dafa tàllal loxo waaw may fannaare mi seen ndeysaan alarba ci ngoon yamari jaar tàpp ma ndeysaan alarba ci ngoon jaaga kawe mu tàpp ma ndeysaan du ko avion daal wa jàngal london seeti yaram aas te ñoo lay la bay Ablaye li nga wax si ndoor rek jur rek la jërëjëf waay bi lay loolu jur rek la neex